aywa euh, tey bokk na ci dañuy ñuy fàttaliku mbiram sergent euh, Amadou Diop moom nag euh, réussiroon na daal lu am solo ci wàllum pension de retraite ñi nga xam ne ñoom ñoo nekkoon anciens combattants yi duñ ci sori ñu dem seetaani élément bi dellu si waat fanweeri fan ci weeru novembre atum 2014 euh, canadien bi euh, cosaano ci ay di Michaël Jean ñu tabb ko secrétaire général bu organisation internationale de la francophonie euh, ci fukk ak juróomeelu ndaje bu mbootaay boobu ñu doon amal ci ndakaaru ca centre international conférence Abdou Diouf bu Diamniadio mu wuti woon Abdou Diouf mi jiite woon OIF atum 2003 ba jamono jooju musée Léopold Sédar Senghor fanweeri fan ci weeru novembre atum 2014 ci lañu ko daloo musée boobu nekk ci këru président ba ca boppam ci quartier fan Résidence album Michael Jackson boobee ñu duppee Thrilleuse mu ngi génn fanweeri fan ci weeru novembre atum 1982 mu nekk disque bi ñu gën a jaay ci àdduna bi bi tàmbali ba tey fanweeri fan weeru novembre atum 2000 nguurug Sénégal ak mouvement des forces démocratiques de la Casamance ñu ne guléet ci la ñuy daje ndaje moomu sax ñu jàppoon ko fukki fan ak juróom-benn ci weeru décembre ca Ziguinchor. Ahmadou Ait Jo. fanweeri fan ci weeru novembre atub 1982 euh, ci la faatoo ci ndakaaru ci juróom fukki atam ak juróom-ñett moom mu nekkoon njiitu réew euh, bu euh, Cameroun diggante 1960 ba 1982 ñu denc ko ci sëg yu yoof soxnaam soosee ñu doon wax Germaine moom it mi ngi faatu ci ndakaaru fanweeri fan ci weeru avril atum 2021 bi mu amee juróom-ñett fukki at ak juróom-ñeent dañuy taxaw ci fanweeri fan ci weeru novembre atum 2001 ak doomi Sénégal bi di Amadou Diop nekkoon ancien sergent chef bu armée bu France li mu bëggoon nag mu am ko ci kanamu conseil d'état bu France bi gannaaw bu mu ko yàggee di xeex muy ndàmpaay yi ñu doon jox ancien combattant yu Afrique yi téewoon ko atum 1959 ba jamono jooju. loolu noonu nga xam ne ancien combattant yooyu ñoo ko doon jot loolu aussi vraiment am na jeexital bu mu def ñoom parce que tax na ñoom aussi vraiment lépp li nga xam ne ñoom ngi ci doon dund ñu mën a jot seen i droit dans les quatorze régions am na ci ay ñoo xam ne ñoom ay infirmerie infirmerie yooyu hôpital yooyu noonu moom seen li ñuy seen seen liggéey mooy di jàppale ancien combattant yi nga xam ne ñoom ñoo dañoo feebar am ay problème mu santé bi ñu waxee jeexital bi mooy boo xoolee ancien combattant français mm-hmm. ñoom ci côté boobu noonu ils sont très bien faits wax dëgg yàlla ñoom ñoo ngi jot li nga xam sensé ñoo ngi leen mm-hmm. ni xaw a jafe tuuti rek mooy revalorisation pen kii mooy mooy reconversion pension yi ci pour les veuves la loolu aussi quelquefois dafay jël benn temps bu bu ñu wax les tirailleurs nekkul sénégalais rek quoi mais c'était tout ñoom ñoo nekkoon ñoo ci donc jeexital boobu mu ko ci amul yow mu ci amul jot mais dafa étendre ci ko li nga xam moom moom liggéey boobu moom def na ko xeex boobu mu xeex loolu ba am ko vraiment delloo ko ko comme ñoom aussi bi ñu réclamé général ñoom la ñu xeex ñu delloo leen ko moom aussi Amadou Diop lañ ko mën a delloo moom ñu ko la aywa muy sergent Amadou euh, Diop moom it tey ñu koy fàttaliku Malick waaw ñu koy euh, fàttaliku am na sax arrêt bu nga xamante nii moom la ñu tuddee arrêt Diop. Hmm. Euh, ndax dafa jëloon euh, xeexu ancien combattant yi yóbbu ko fa mbaxana doone benn ngir ñu àtte leen. Hmm. ndax ku nekk xam na ni ca atum guerre suñu maam yi. Hmm. defoon nañu lu am solo ndaxte fépp fu nga xamante ni soldat wu France taxawoon na fa ñoom taxawoon nañu fa. jaayante ko te ñoom lañ doon yóbbu sax ñu nekk chair à canon maanaam ñoo doon jiitu tubaab yi nekk di làqatu ci seen ginnaaw. bal yu bari ñoom la dal mooy la la bindkat ba doon bind mon sang à tous les levants a rougi la neige et mon sang à tous les levants a rougi la nature mm. donc ñooñu tey mérité woon nañu ñu xoolaat seen nekkin rawatina seen pension de retraite mm-hmm. parce que dañ ko gelé woon gel bi demoon na ba egg ci 47 ans mm-hmm. mais en 1996 ci la sergent Diop Amadou Diop yóbbu affaire bi mm-hmm. euh, fa mbaxana doone benn ci wàllu Union européenne ñu daal di koy euh, delloowaat ak ak yelleef euh, ci gouvernement Raffarin en 2000 2006 ci la ñu euh, revoir les pensions à la hausse ñu fàttali ni euh, ñoom li ñu doon fayeeku boo xoolee li euh, ancien combattant français doon fayeeku mm. téeméer boo jël fanweer fanweer ba ñu la suñu maam yi doon fayeeku maanaam 30 pour cent mm. mu nekk lu nga xamante ni injustice la woon mm. xeex na ko ba fa mbaxana doone benn dem nañu ba am ci ndam ñu yokkaat seen ay pension de retraite mais ñoom ñu ci bari sax xëy na xeexu principe la mais fekke wuñu ko mm-hmm. mais seen njaboot ak seen i ndono war Euh, tey bénéficié wu ci li nga xam ne moom la moom moom la ñu ñafe woon pour mm-hmm. delloo France gëddaam mm-hmm. ndax ba ba Allemagne solee France mm-hmm. ñun ñoo leen doon wallu waaw loolu euh, histoire ba tey bind na ko tey itam euh, liggéey baa ngi fi merci beaucoup justice reconnaissance rek la ñu laaj kese reconnaissance merci beaucoup Malick aywa ñu dem ci xibaar yi ak Ibou Diouf ci gàttal lay doon